masawa is jaa yamtaaru alaaji Abdou dem ba palaasam nuyu ji ko yëkkati benn pëna ne kuy jënd pëna keroog la alaaji ndërim bañatee marchandise am taxawatul dabaax bii muy sol xam ngeen lu ko indi benn naara ko indi woon mu tëw jar daf ko commandé woon du ma tudd turam mbokku baaroot bii la bàyyi defal yàlla bii la nand ak moom commandé ci lu bari conteneur pour jaay ko mbaxana yi mënta jar alaaji du dem ba palaasam ne ko jox ma benn mu jox ko mu sol ndakaaru ñëpp xëy gis alaaji Abdu sol dabbaax ñu songu bitig ba ba mbaxana mi fu faf tudd dabbaax ah nitu yàlla daf di caaxaan moom lay wax barki démb mbuur ma ne leen Abdou Aziz Samb bii di ñëw ci man yéen ñëpp xam ngeen ko tuddul Abdou Aziz Samb déedéet këyitam yi Abdou Aziz Samb newu ci sëriñ Samba ci ne papam benn xaritam bu benn sëriñam bu ko jàngal alxuraan la ko tuddee sëriñ Samba Cerno Bachir moo ko tuddee Abdul Aziz ba tur ba réer dafa ñëw rek mu ne ko yoon ni nga bëggee alaaji tuddee naa la alaaji Abdou àddina bi yëpp Abdou Aziz Samb lañ xam fi may waxe yow te ca Mbuur rek la ko ko waxe ca ca ca Louga la ko ko waxe booba kenn newu fa man yàlla ak ñoom waaw waaw waaw kañ ca Nalfa dañuy tase ci laylatul qadri bi mhm. ca ca caara caara dañ fay daje at ba jot ñu daje fa wax nga dëgg waaw kay Thierno Bachir téye ci loxoom ne ko bés ni tey tuddee naa la alaaji Abdou Aziz jeex na ba léegi ñëpp Abdou Aziz Samb rek la ñuy wax loolu nit yàlla rek ko mën Cheikhul Xaaji Malick noonu la def ak baayam maam Ousmane maam Ousmane tudd loon maam Ousmane Demba ja la tudd Seydi Xaaji Malick ne turu ceddo la ne Ousmane soxna Safiyatu Ñang bii di soxnaam tudd loon soxna Safiyatu Ñang Alfi Ñang la tudd ñangeen bii xam na li may wax ca jolof bari na fay alfi sax bi mu ñëwee ci loxol Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick ne turu ceddo la tuddee naa la safiyatu alfi ba réer na bu yàgg kenn xamatul ndax alfi la tudd ci nii rek nga koy xamee ci waxtaan kon nitu yàlla lu ko neex mu def nitu yàlla kopp sëriñ dañoo bokkut sëriñ baaxut waaye nitu yàlla baax dama yàlla baal nag ci waxin ni waaw loolu rek la nitu yàlla ku sëriñ bokkuñu waaw yàlla lañuy wër waaye sëriñ mook moo pañe guro yi yeeyam tànn sa bu la neex la boo demee ba ci pañe bi tànn sa bu la neex la ab sëriñ moom kenn wutu ko am nitu yàlla la ñuy ut sëriñ mook pañe guro yi ñoo yem ngeen baal ma boo demee ba ca pañe ba da ngay tànn sëriñ tànnal bu la neex waaye nitu yàlla yombut nitu yàlla yombul de moo tax ku ci am boo bu bu mel ni ci am na Basiru Muntaga Daha Cheikh Umar téyel ca piir ya la bokk moo tax dem yii ñu fay dem ñii buñ ko xem de ah am na yoo xam ne sax du ma ko nettali am na ku ma woo ca ca nuñ koy waxeeti marok xale bu jigéen la Moodu Ndaw bi may dawalal la jox te moom la woo ci seen yooyu le WhatsApp moon ndaw jox ma ko ay jooy sax la ba ma ne ko soxna si kuppeel mu ne daaw la ñëw ci suñu gàmmu gi dégg ma waxoon ko mu yéene mu ne ma la ma yéene woon yépp teg naa ci sama bët la ma njëkkoon yéene mooy déwén bu ma fekk fii ci senegal mu nga Maroc nee na ma ñëw ki ma dalal football ma ca biti xam nga jigéen rek waaw buñ la chantage nga bañ mu football ko ci biti nee na fi ma taxaw ci biti ne yàlla bu fekkee ne na Thierno Bachirou am na cër ca gàmmo ga la ma fa naa gis ku ma fat mu ne dama jékki-jékki rek gis ku téye sama loxo ne ma amoo foofa naan ma ne ko dee mu ne ma kaay ma yóbbu la foo naan mu ne ba tey foofa laa nekk mu ne ma te dama ñëw rek commencé léegi ci entreprise yi ñu yaakaar ne caaxaan hmm. na nee ci gàmmu gi laa ko ñaan waaw kañ yooyu nag ay junni junni laa ci am xanaa leen am na nitu yàlla bu mag nitu yàlla la de ponkal mu ne ma dafa am feebar bu ma daboon man moom nitu yàlla boobu mu ne ma dem naa faas medinatul munawwara rek laa demut ndax dama amul xaalis mu ne ma fu ne ci bàmmeelu nitu yàlla yi dem naa fa ñaan pour feebar bi dëñ mu ne ma dëñut 2010 suñ premier convoi dem Louga mu ñëw ne ma dama bëgg a ànd ak yow ndax kat dama bëgg dégg na ne cer Cerno Bachir nitu yàlla la wali yi la te gëm naa ko man daal dafa am feebar bu ma ne ko loolu bul yàggal boo mee rek yéene ko mu ne ma biñ ne cëpp kër Cerno Bachir bay génn ca kër ga di dem fañ ñu dalal ca kër Jili Mbay mu ne ci laa yëgatul feebar bi ba fii ma toog di wax ak yow moo tax moom mu dof ci Cerno Bachir moom te du taalibe te ŋaaŋu ko Cerno Bachir maa jàppaat ci loxoom ba ci Cerno Bachir ne ko nettali ko mu dégg mu nettali Cerno Bachir dégg Cerno ne ko lu ko ëpp a ngi fi moom xam nga day xotti di dem Cerno <laughs> man loolu dama ma neexee te wallahi li mu waxee dëgg lu ko ëpp a nga fa moom loo wax mu ne la lu ko ëpp a ngi fi nit ñi xamuñu ko nag waaw waaw waaw digg hmm. jeex na. Hmm. Hmm. fajul. waaw. ba nga waxee ne lu ci aajo bu waay na feebar. waaw waaw. jëloon ko Mansour wax na te kooku chauffeur la buy yóbbu bagage yi rek mooy yóbbu Mansour mi koy baas yi. de jeex na moom soxlawul taalibe Tijaan dem na Bachir Gueye na nit rek moom waxul sax jullit am na ci koo xam ne autorité la nee na ma doom laa bëggoon. ma ne ma dem ci moom wax ko ko mu ne ma doom ma ne ko waaw ma demal am nga doom ba pare fi mu ne day ngénte rek di teg maa la ko barki rasulullah day ngénte rek di teg <laughs> ah te bu ma tuddoon turam ñëpp yuuxu ah, bu ma tuddoon turam ñëpp yuuxu waaw waaw waaw toogal waaw waaw wax nga ma ko fi ay yoon sonn ci sax. Mm-hmm. ci barke mm-hmm. mm-hmm. ah mu ngoog. jeex na ah moom ku sonnoon ci zawiya bi la yaxya bii moom bu zawiya bi amuloon day day day dee moom. walla nit ku baax la daf ma daan wax bàyyi ñu dem ci diw ma ne ko yaxya laaj loo ma la ay yaxya yemal. yow ni nga mel ak sa mbaax gi ñëpp meluñu ko dañ lay sikkal sax yow amaan na ñu jox la sax ne damm nga ko ci sa poos fekk joxuñ la sax lu ko jar mu ne ko bàyyi rek yàlla dina ko defar waaye li wax xam ma ne wax na loolu waaye Cerno Bachir bi mu ma woowee ma ñëw toog mu ne ma zawiya boobu ci sa kër laa bëgg nga defar ko ba mu dàq ci zawaayaay te bu ci laaj kenn ndimbal ci laa ñëw song ko baax na walla baaxul te yoreelu ma ci kenn bor te ñi ko liggéeykat ñu ngi may dawaloo di ñoo ma yoreel bor fi mu ne yoreelu ma ci kenn bor ah nitu yàlla am na de nitu yàlla am na yal nañu yàlla defal sutura nag bu ñu xas kenn buñ ŋàññi kenn nañ ormal ñëpp kenn ku ne ka nga am na la doy sëkk waaye ormalal ñëpp ki nga xamul sax ormal ko boo ko rombee ci mbedd mi romb ko ndànk fexeel sax ba sa pëndu tànk bu mu ko puseeraan boo ko mënee waaw billaahi wal ku wattandiku nit ñi rek rëcc ku fonk nit ñi rek yéeg li yàlla am yëpp a ci biir nit ñi maa ngi koy wax léegi rek foofu laay jeexalee jox mbokk mi alaaji jibi Mansour bii laa àndal alaaji jibi Guèye goro kii la ñépp xam nañ ko ca gaaya muy nit ku baax yii gaay yi di tiitaroo kenn ëppale wu ko ci turi yàlla yii ak lasaraar ak xam yàlla ak turi yàlla ah balaa maa gis ku ko ci raw dana yàgg dem leen ngeen laaj ko am na yu ñuy waxtaan maag moom Mansour bii fekkee na ci ku xam yàlla ngi noonu waaye ku fonk doomu aadamaa ngi noonu ku bàyyi xel doomu aadamaa ngi noonu waaw dina may wax yoo xam ne sax ñemewu ma ko wax man waaw ku demati gaaye na nga ko ziyaare ji ngir yàlla alaaji ji bigéey nit ku baax la hmm. ku yàlla baaxal la waaw ku yàlla baaxal la xam naa ko bu baax ku yàlla baaxal la hmm. Hmm. ñi ko ñeme it de ndax dafa réservé wu ndax Sénégal boo amee yàlla te réservé ñuy xañ la ko mooy li Serigne Cheikh daan wax ne buñ xam mukk ne yàlla ngay ut mu ne ker buñ ko xamee dañ la ko utile ba mu fa réer mu ne ndax kenn ku ne danaa bii moo ci baax bii baax na de mosal bii te ku mos yëpp sa biir daw wala ku mos yëpp sa biir daw mosal bii bii baax na laalal bii bii baax na bii baax na ci taalibe de bii boo ko sikkaree daanu malakut looy doyee malakot boo ko sikkaree janoog malakut looy doyee malakut wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi waliyakuna min al muqinina ibrahima ba mu gisee malakutu samawati wal ard fu mu fu mu mujje fa lama ra al shamsa baziqatan qaala hada rabbi fa lama afala fu mu njëkkee ca bidiw ba fa lama ra al dimbale leen ma waaw kañ fa lamma janna alayhi leylu kawkaban raa kawkaban qaala hada rabbi fa lamma afala qaala la in lam yahdini rabbi eh, ah, qaala waaw kañ fa ramma la al ramma fa lamma ra al qamara baziqan qaala hada rabbi fa lamma afala qaala laa uhibbu al afilina mu dem ba ca fa lamma ra al shamsa baziqatan hada rabbi hada akbar ba mu yeggee nag la xamatut fu mu jëm yàlla door ko wax wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wala yakuna min al muqinina malakuta samawati wal ard lam ko te lam ko terminé loolu rek lay jëriñ li yakuna min al muqinin malakutu samawati wal ard boo ko gisee ngir dëgëral sa ngëm rek la du la jox benn dépense da ngay génn liggéey yi <laughs> kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard li yàlla moom ci asamaan ak suuf mu wan la ko est-ce que daf la wax ne jëlal daf la ko wan rek waaye waxu la jëlal loolooy am te bu ko sa loxo laal boo ca noppee da ngay dem liggéey pour am dépense maam ibrahima ba mu ko gisee ba noppi dafa génn dem liggéeyi sàmmi ay xaar ñu fay ko mu jox soxnaam dépense la lay won ne ba mu ko gisee lu mu ko jëriñ après lu ko tax a jógee dem màkkatal mukarram lu indi zam-zam ndox maa jeex lekk ga jeex malakuuta samaawaati wal ard newu fa woon mais nañ waxante dëgg ndox maa jeex lekk ga jeex mu ne xaaral ma dem seeti euh, lu ma leen jox boobu ana malakuutu samaawaati wal ard bi maam Ismaayla di wequ fa mu doon weqatu fa la sam zam génni lu indi Safa ak Marwa soxnaa ma doon baagante ci diggante ñaari montagnes yi di seet ku leen xettali ci luñ lekk wala luñ tooyalee seen put pour mën a dund ana malakuutu samawati wal ard li yakuna min al muqinina rek lay jëriñ ngir nga xam ne yàlla am na moo tax mu wonaan ko ko ci beneen aaya rabbi arini kayfa tuxyil mawta qaala awalam tuumin qaala bale lakin liyatma inna qalbi fa qaala xuz arbaatan min altayri fa surhunna summa jaal ala kulli jabalin minhunna juz'an summa duhunna yaati nekk sa'yan lu mu ci jublu gis nga yii ñuy xalamtee nit ñi doxul Seydi Hadji Malick am na lëpp gor jak saaw sëñ Touba am na lëpp tuubaa gale looloo tax mu gor ko boobu mu ngi Jurbel maam Ablaye Niass am na lëpp gor Saalum Cerno Momar Saïdou Ba am na lépp moo indi daaka Amari Ndaak Seck am na lépp dem jihaad yi Cheikh Alhaaj al Fuuti yu ñetti téeméeri nit ak fukki nit ak ñett la daan dundal par jour par jour